amay ah, ci làmb rek di deglu rek di baye sama père Soro Fall lu mu bëgg rek man bëgg na inshallah allah. sa ak fëgal bu ko dégg na ko dé may deglu sama père rek sama père Soro Fall lu mu bëgg rek man bëgg naa. mais fëgal bu ngor xam lu wax mu ne du mbay sama sama avance ñoo duñ ko mësa jël ci aduna ah man déggoo lu ma wax man may deglu rek may deglu rek may deglu sama père rek lu mu bëgg rek man bëgg na lu mu bëggul bëgguma nice. dafa melni ni. dafa fëgal bu ngor. ñemewuñu fëgal bu ngor waaw ah, loolu question bëgg a bëre ak man a bëre man waaw ah, lamb suwa la rek bu ko neexee suwa si waaw moom na yow xam nga loolu ah xam nga ci dara kay ndax yow sa bopp woo nga <laughs> LVD TV, la voix du Ndiambour.